قام رسول الله من الآية كوني خديمة هو عبد الله لأسر عبد الله خادم رسول خادم رسول خادم رسول كسب خادم رسول تفلني مجل خادم رسول خادم رسول خادم رسول خادم رسول دنيا وأخرى دنيا دنيا وأخرى دنيا دنيا وأخرى عزمة وغير رسول أريتني سره رسول الله لا إله إلا تاري لا تنسى سربها فمن ينسى أمه فالمتمة مخلقة أبو بكر الصديق في صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى قرن أبو أصل فاروق سرواء نادر في تسديد المصطفى إيش سوسو أبي سر منداب والأفان سمايا لا نار ثم النار لا نار النار بما المبرم وسبيل المختار رسول الله رسول الله أقل سيدنا سيدنا محمد يا رسول الله رسول الله إني خدمة مؤثر لكم الآنية حب الله نم المؤمن عن الميل أما اختير والأقوى أغمل النبس لقى أفضل لمولاي وحده قديما لمن أن تركي كلة الزنور نقي تقي صالح ومسلم بصيرا لمن لله إلا قسم جارا مسيح إبرافال جارا مسيح إبرافال جارا مسيح إبرافال جارا مسيح إبرافال أنا باي فالي سب شيخ إبرافال دبلن نيمبر شيخ إبرافال شيخ إبرافال شيخ إبرافال شيخ إبرافال شيخ إبرافال Cheikh Ibra Fall jaaraama Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Seex Ibra Faal ami Seex Moodu Fall Fall jaaraama Seex Ibra Faal lépp nga mel bu Bamba taal Seex Ibra Faal yow yaay Kamaal yal na nga dellee bëreexe Seex Ibra Faal xat fu taru jaal Seex Ibra Faal xat sal ma jaal Kamaal Seex Ibra Faal ma sant njaqal min jalaal kuy Baay Faal dugal taxaw màggal gëmul nga faatu yow man xiyam la febbal jannaatu am ngay dërëm am ngay ngërëm fam say dërëm jëndoy ngërëm loo ma sa am tàmbal kërëm hey daal nga daa joxe Cheikh Ibra Fall ku la gëmul ba faatu yowmal xiyaam du tàbbal jannaatu Cheikh Ibra Fall bi mu demee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara ji di suur moo jëkk yelwaani di wër ñu di ko ree di teex teexi yendoo lëggéey fanaane rab kayay xaram banaa kuréet baluy ganaar di kur kuréet boo ko xewal dawul 3 2 foofu laa ñaanal nit ñëpp jóg màggal Cheikh Ibra Fall mooy borom guddi Cheikh Ibra Fall yaraaw lakk Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall na saal bi yëpp naan yaraaw lakk Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yaraaw lakk Cheikh Ibra Fall yow ku la bañ jëppal xiyam ku la ko lakk ndax laa bañoon ci xar bi Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall bu rafaa yow bu la bañ yombal xiyaam ko dafa lakk salaamatan ci xarnu bi Serigne Rafa jërëjëf dañ doon barkeel rek sëñ Abdou Xafoor Joom di di bàyyi am jërëjëf salaam rahmatullah sëriñ bi mooy sàkku ci mbooloo mi kuréelu junni ak téeméer ak fukk benn ñu wàcc ñu jàng xasida moo ay naafi kon mën nañoo wàcc mën nañoo wàcc installé wu ñu wéyal njàng mi bépp murit buy jàng xasida mën naa wàcc ci bulus bi hamazat sayatin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun noo ngi nuyu mbokk yi fi daje yépp di sant yàlla bu baax ci guddi gi nga xam ne ku ne war na ko wooteel borom bés bi ndax moo dimbali ñëpp sunu borom dogal sëriñ Cheikh Fall Khadim mii koy def tubaab fi kala di ko defaale jullit yi di ko defal mboole mbokki Baye Fall yi noo ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di ñaanal sëriñ Amdi Fall Mbenda mii fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla nag fi sa borom doole yàggal te may ko wér te ni yàgg feeg moom di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Ahmadou Bachir yàlla nag fi sunu borom doole yàggal te may ko wér bis bi tubarkalla day bisu xeewal di bisu ngëneel maam Cheikh Ibrahima Fall daa waxoon sëñ yaaram mbay ne ko yaaram mu ne ko Fall mu ne ko nit kat doom bu amul du lenn denc ko fenn saa yu tëddee bu te amoon lu dul Cheikh Ibra ku ne xam na ne sama màggalu sëriñ gannaaw suba rek la muy sëriñ Cheikh Fall bàyyi Góor di borom Touba Sam di Sam incha allah moom la ñuy waajal waaye daa mënul ñàkk ngir lu teew xanaa dañ ci barkeelu ay béy rek ziare ko wóolare yi ak soppe yi barke Cheikh Ahmadou Bamba barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine wal Mouridat. bismillahi rahmaani rahim.

سلام على المسلمين وقبل به مسمع عصايا كريم وابن مجدنا إمام رب بالنور وبإبراهيم نفس سنوبي وابن ربينا وكن بموسى وبجاه عيسى ويقيني دنيا وأخرى نوفا صوالم يا رحمن قد صهب الإسلام والإحسان بحرمة فضله والفاء جبل بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلي وآل ستين أبلغ في الدنيا ما أخلى النور والعمر والمساعد باقطة وبسعين واقف عن المجنون الليل وبسعين وإنا وفي المجنون من كل ما خاف فوق الفوق وبأبي وبيرة ينايف إلى جناب وزاننا يني ذاك عبد الله مجنون أي ولد الأباس كثير ذاك عبد الله مجنون أمرا ومن كتاب الله أكبر وبالمسرور وجاء السلام فمن بلى وقرآن وكلام ويا ربنا محمد الحراس ورم سلطان يحب الناس محمد الحسن والحسين كل في دار المريد محمد الخاسم ثم سائل سبي سوائر ما علمه محمد كل الإلهنا علم عليه والمكرمة رجال فاتنا بحق النفس أكثر ما المؤمنات ويسأل عافني أطمع إلى رسول وأمني دنيا وأخرى ذاكرا بأمك رسول وضمني أمكا ويسنا منوال وأخمت وأخم فقبلتني وفي ربي وبجعل أسواد مستقامة وقرآن بها من حافظ الرحمن وبعد وسلم الخلال جوّر الغفران والسهال والعلم والأمان والإمامة بالعفو والتكريم أولياء الولاء والانسلاك بالهوى والرضا وما برب والإجلال وبصحيح رب جل جلاله وطاعته وسماع من الله سبحانه وتعالى ما به قبله محمد الله sama xaalidi wa bisraam maqasid wa jaamal muminina ummara ximna makran wa faqal makara وأكرها المجاهدين عن المصير أهان قيما بحق فرد وبحق قرى سدني كما سدن بوصفها وحرمة القاسم ثم خالد سدنا خبر مقتنع المناهج وبسليمان كني كيد لين وكان بأمنا خديجتنا بالعمل فنعم لنا العمل والأمل بأمنا عائشة بنت مريم وبرهنا الدين والسلام بأمنا حفصة أم الأمل وبينما يوم سؤال وأكل بأمنا زينب إما سار من أمام مكنا وجعلني وسر بمالك وصادع والي ونفق وعمر مستقيم Yeah. النعما ونفيد المقيس الكرما بجار ذاتنا من الاسمة وقتل اهوال يوم الخمار بجاه حتى الى كل جميل قرانات ساعة عليه ومغفر لمن يكون ساعة عبارا يكفي به ولا طريق ولا سيران لنفي الأمر والوهل وبساعة وبالآية أنجمة الأسواء والنهاية وبمبات من سؤال وعسى وسكرة الموت رب والحساب وبالمخالات وبسرور إمامنا بلا وفي الأسر وسلم وسلم على من وعلم شاء في النبي وفي الوالدية وفي الجميع أن وحمد سعادي السنين وكل كل سلام الدنيا وإنسان اختارنا والتفنا وخونا وكلنا وهب لنا أسر قتال الأنام وسلم على من وسلم وقلبه حاجة كل مسلم سيدنا عيسى فعل لكن تسيب على كل ما تسيب فعل سبحانك إنك الكمال وصلت حقا للجلال سبحانك لم يصل بخير قائد حق أصل متى صدقت في الكمال وما في فضل أثر من رام مثلك هجس فلا يراه في المجلس ذلك هم قد نجس سرواك ليس في البصر ختمت أهم باسم عندك الخليل فالخطرنا من القليل بل فكر به قد قصير يدخل في النار المليم ثم تسمع في العميم سلاسل ما تكون نوس فكسرت من سكر Ibrahima Fall وفي طريق الكمال إن من شمس الجلال ورافع من خلقكم طريقه خير الطرق سالكه كما ظهرت فمن وحده مكملا بالأفلام في الجسد شريعة متهلة حقيقة منورة من فاز عرفه ولم يكن مستعمل شريعة معصومة عقيدة معصومة ولو فمن كفر مفروض بقى فيه خير العمل صدق فالعقيدة تائلة الناقية وإنه وسيلة وفاق أهم العمل عقيدة منورة بيوم مقبول في الصبر شريعة مطهرة في كتب المثلات ويوم شرع رب الكبير xam nga mën naa tuwa si bopp ilam la fi aslina yaqusu amina fi yaslu ko si sabaniya mu xalaat ma sama aos billahi la asis min sari mukkin wal muyin wa sari seytaan rajim una wa fiqaan lami suma salaatu rabbuna ala lazi yasifuna muhammadun xaayiduna ila najaati wa mahin amin ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدي سالم بك يلا يلا يلا تفهم سبحانك ñu ngi sant borom dajale waat ak yu bëri te baal la ñu ak xéwal ak képp seen rajo sax daal di leen di jërëjëf sëriñ Saliou ñu ngi leen di ziar bu baax

duunu dëpp ñun duunu daal ñun duunu dellu yow yàlla daal baalu baalu am di Moodu Mustafa fal yàlla daal baalu am di Moodu Mustafa fal yàlla daal baalu am di Faal Seex Mustafa فاليقنا عليهم ويرجو عمدي فيا الشيخ مصطفى فاليقنا عليهم ويرجو عمدي عمدي عمدي مصطفى فاليقنا عليهم ويرجو Mm-hmm. ربنا لا اله ne maa ngi jégalu jëmmi Cheikh Ibrahima Fall kii doomi sëñ Saliou Fat Saw la sëñ Saliou Fat Saw mooy bàyyam addee maamam laa bëgg ñu laajal ko addee Cheikh Ibra Fall mooy maamam mooy maamam Cheikh Ibra Fall ay maamam jox leen ko addee Cheikh Ibra Fall المفعل بكم مفعل مفعل بكم لا إله إلا الله فالله يلا يا نبو ببرا لا إله إلا فعل لا إله إلا الله الله لا إله إلا لا فعل لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا بريب لا إله إلا لا yàlla yaa di buur di borom jaaraama Seex Ibrahima Faal loppu nga meel di Bamba Faal leeral nga réew mi yaa di tamaalo yàlla nga dolli ay ngëneel jaaraama Seex Ibrahima Fall ku bëgg Serigne Cheikh Khadim Fall di nga baax a jot ñu màggal suuru maa sey na bu njaay buri bu la ilaha illallah Fall yàlla yaa di bu la ilaha illallah illallah buri buri la ilaha illallah fal la ilaha illallah wajal tawassuli liman yadu bi saadat ad-darain waqfi li bi wajal tawassuli liman yadu bi saadat ad-darain waqfi li bi وليجد وللسيدان لنصبه بالأمن والرضوان وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والهلاية وبالنجاة من سؤال الوساق وذكرى بالموت رب والحساب وبالوسارات وبسرور إنما ما تنعى وفي النصور وسليا وسلم على نبي وآله ما سعى بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سعى بياسمي واغفر لكل ذي تعلق بيا واقفا سعادتي يا ربي وطبنا وخوينا وكلنا وهب لنا وسط الختام ربنا وسلم على نبي وسلمي واخدمي حاجة كل مسلمي أدي سرين شيخ خديم فال sëriñ Cheikh Khadim Fall yal na yàlla bàyyi ko fi wéral ko ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf mbokki taalibe asalaamualeykum wa rahmatullah. ndigal li ñu jot ci sëriñ bi léegi mooy. waa tribune bi. góor yàlla yi fa nekk yépp nañu jóg. fii soxna yi lañ ko mën di réserver at mu jot fii tribune rose bi yëpp ngir soxna yi kon ñu ngi leen di ñaan góor yàlla yi ñu jógee noonu fare nii ci seen càmmoñ walla ndeyjoor foofu soxna yi ñëw fa loolu mooy ndigal te it leneen li ci topp mooy ñi nekk ci biti sëriñ bi nee na ñëpp dugg ci biir léegi ñu wey liggéey bi di ñaan mbokki taalibe yi kun ci jox waxukaay bi ni la juróomi minute na fexe ba yam ci juróomi minute yooyu ndax mbir mi dafa xat te ku ne da am yéene fësal sa wax bisimilah. auzu billahi mina si yàlla ñëw mel xam ne. yàlla dafa yàlla xam

Suna

waaye am na sopp maam Cheikh Ibrahima mako jaam yow ma si ndam na bëgg leen Ibrahima faal maa ko bëgg faal Sëriñ Tuuba nee na bëgg leen maam Cheikh Ibrahima faal

إله إلا الله لا إله إلا الله غفر غفور يا الله غفور يا الله سلفا فاندرا نبي يا مام توزرا أم فال سبا سبا سبا سبا سبا سبا سبا waaw góor téye ko foofu yaa ni ko sopp si indi faal mu dum lenn ay soppe rek a fi toog nag waaye nag suñ indi dafa am tànn yabal leen fi ñu fekk si Serigne Cheikh Khadim Fall ci bis bi moo ci joxe ndigal nda bu nu woon lu am du am kon bu amee mooma Serigne Cheikh Khadim nag def na la ko war lépp ba ñëpp wuy si ko ñu bëggoon li xam ne noonu la tëralee woon programme bi ñëpp àndandoo dund ko ci daa mel ay weti wet la soxla nii. ñun doo ngay ñu toog nii yéen taal yi toog nii réesagul Serigne Abdoulaye Khaye Fall moo toog nii ak ay rakam bu ko kenn jaay dugg wala ab taar sëñ sa xarit daa woote ci bindugul ci ñu woo yëpp amagul fu mu toog koo xam ne nag yaa ci kaw ca a seen sëñ Serap Fall nga may ko maa ngi war a seen sëñ Serap Fall may ko xam nga ki nga war may. lu waay maywul nag lii su ko may nan bàyyi kilifa yi ñu dugg taalibe yi ñu ci wet ñi ci des bu ñu ko defee ñu la mat sëkk nan bàyyi kilifa yi sant faal ak mbàkk-mbàkk yii ñu ñu mën a toog fii te ne si yam roqeya ak Serigne Cheikh Khadim ñii ci des ñu fii ci ginnaaw ñu mën a wéyal programme loolu sëñ bi woon naa ko jot رفعان أبو رجال لكم جميع لكم جميع أبو رجال لكم جميع ظلم دمنا بنمزج يا خوس كم كم لولا Moussa kalaam lay la ilaha illallah fa la ilaha illallah yalla yalla la ilaha illallah fa yalla yalla ربنا لا اله الا الله لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله maam sëñ Ndiaye la ilaha illallah la ilaha saxañ fa la la la la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah ci góor la la la la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah la la la faal la ilaha illallah la la la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 di ko ñaanal suñu am di faal mu du penda mbenda jaxu nay ba sala penda na def si garaaf ardo ko maafaan pul baa nga moo benn mutu mbenda faal faal seenoon ñu waaye di ko ñaanal suñu am di faal roqaya di xalifab sëñ Mor Talla mi ni woon ma jox la loo moome am jàppal ca jaajëfati li wër mbindeef yëpp luñ fay fay da say borat waaye di ko ñaanal suñu jàppal xadim bu baax na ñëpp ñu taxaw ñu wax jërëjëf Serigne Touba waaye jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall na ñëpp ñu taxaw ñu wax ko Baye Moussa sëñ Mortala moo ne woon Baye jaloore yi yu baax yi ngay wër ak a tiitaroo te wut say jaloore yu moo gën a wóor

dal di mais cël ndaaj na ko ñuy ñaan sëñ Moustapha Rokhaya yàlla na fi yàgg lool xalifa sëñ Mor Talla Fall jërë ngeen jëf Baye Moussa bismillah ah Moussa yow duma ko tëjoo Moussa duma ko tëjoo yow si keroog dëgg la ilaha illallah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 la ilaha illallah ku sopp maam Cheikh Ibrahima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 Mama,

يا كفي يا كفي ci barke la ilaha illa allah addi sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall may leen nañu may sëñ bi dugg toog yéen ñi nekk ci kanamu sëriñ bi dañoo bëgg ñëpp toog sëriñ Cheikh Fatma Mbacke mi sëriñ Muntaxa yónni ñu ngi noonu toog kon képp ku nekk ci kanam addil suuf te jëfe ndigal ñi toog bàyyi caméra yi def seen liggéey coow leen ku bëgg a toog mën ngaa wàcc tribune yaa ngi nii des na place. sëñ Mor bisimilah. sëñ Xaadim waaw. a'uuzu billah من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات شياطين أعوذ بك رب أن يحضرني بركب سري سالي وقيل الجنات ما ليس يهمد رسول كريم بيتنا فأحمد يقينا الجنات ما ليس يحمد رسول كريم بيتنا سار أحمد وغير سيما مطلق سرمدا غسول صفير البرايا محمد محمد وهم دائه قد عطوا والعود أمد اهتني بسم الله جمت عباده بشير حبيب العزا قبل محمد هداني في البر شبه بالورى على كل مخلوق بالخلق وقل أسنده مديه رسول الله وخادم النبي ولإليه فوهابه واسم فنده هدادي لربي ساء شكرا على النبي رسولا كريما مظلوم يولد له النور محمدا أرسل الأنباني محمد إسام مدات سرائن الجهير أكون بيا بصرى من دام يفضل مدرت دوام الباس البار مسبدا من جدي علم وامن احسب افيد النساء ما سار او سير شرمدا بلا مخدل الخبل نسي ليس يسجد كريم النساء واجه توخاد للمنى بمسلم وتامني ومولاي احمد صحابا ابا دين النسي دين الهدى وخبل سير بل وعاد عليه فالحمد بشكور لربي بالابتداء محمدا عليه سلام الله بعد ويحمد سرين بامبانينا ماغي دم واي ماغي نيو لو أبدا الظلام وما لي إلى خير كريم مزير تمسك بالنبل متيني مرتلا وبالحرة الوسطى متيني مرتي سرت من ربي من ربي موعدا وعن الأسعار والكورة والكرزة والكبريت وسعد النعمة بيتا له النار غدا وزبور كتاب كريم من كريم مكرم لا بالكريم للخدم من خطاب مجيد من مجيد ومجد لا بمجد للغرب ولا من بخجا انا من منصرا ثلاث فخاني سوء ويس ازير سهسة ديرا sama bàyyi sama xarit sëriñ Cheikh Khadim daaju bàyyi Salim Thiam bii heure buñ dajee pare danaan ma nanga ko jàng dama cee bëggoon a barkeelu juróomi bayit